เออ askan bi kum campagne bi fi mu toll nii fa jax fa yëngatu fa takarnaase si du quotidien moo ñu ko xamal ndax njiit réew mi Macky Sall ma ngay sàkku ndam lu yaatu lu mu bëgg Benno Bokk Yaakaar am ko ci wote yi Ousmane Sonko suba lay wàcc ci terrain bi Benno Bokk Yaakaar ne diiwaanu Fuuta ndam lu rëy lañ fa bëgg a xam Pape Diop ne man faa bëgg a soppi doxalinu ñiy saytu alalu réew mi Thierno Alassane Sall ne Macky moom fa amul benn gis-gis ci wàllu koom-koom bés bi bi jolli na ndax gaa yaa seetal yeewi askan wi ne nañ cohabitation mooy xam de assemblée Mimi Touré ak Oumar Sarr seen passé moom la di dox ba tey ña nga fajiri yéene kaay ne waaye campagne bi gars seen discours yi fa mel ni fa jaar ci mbooy gi fa ñoo saaraar info yéene kaay na ko Barthélemy kay wax fa leer démb ca Dakar bi muy présenté gars na Macky Sall fañ koy dóor are kaawo mu ne xëlës ca laas yéene kaay mu yokk ca moom Barthélemy ne bésu wote yi leer info yéene kaay ba wax ñu ko moo ne Thierno Alassane Sall bu coalition Aar Sénégal yàkk na njiit réew Macky kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee ca Tamba yaw seetal nee na ku ñëw fii Tamba gis ni mu deltoo ginnaaw rek doy na pour nga xam ne Sénégal fay dox di deltu ginnaaw Macky xamul xam-xam ci wàllu koom-koom ngir suqali Tamba te xolal ma Tamba li fi nekk seen suuf si koom-koom kese la naka noonu wàllu mbay faa leen di laaj réew moo xam ne am na or Sénégal te jaaykatu or yi mënuñoo gis ñoo tële mënuñoo suqali réew mi kon faa bëgg ñu jëlee leen quotidien yéen a kaay na ko Macky moom ngay wax fi mu ni wàcc na ci terrain bi de ma ngay campagne ci wote député yi critique yéen ne loolu nag fa ruslu Macky Sall boppam bay ñëw di bokk ci campagne wote député yi lii fa ñaaw moom wote yii yoonam nekku ci bokku ci na bàyyi ay farandooram ñu jàkkaarloo ak seeni adversaire waaye koo xam ne yow doo bàyyi dara xeeboo dara ndax lii muy def nii naan yooyu yaay ma ngay inauguré aka daloo diiwaanu ndar fu munti dem mbooloo ni ku naan ko Macky sot ak ñàkk a ci yam na ko wër ne benn bokk yaakaar fañ leen di mbuqi bañ tëdd su ko defee nag contrat ci wàllu napp gi fañ koy négocier waat maa ko waxee ci 24 heures te mooy kaay na ko hée faa bëgg ngeen def ndànk de Macky Sall fi mu nii fa jël ab cabinet ay américain fay leen ñaari milliards ngir ñu fexe ba Sénégal yi bëggaat ko moom Macky Sall amaat ci moom cofeel image am defar daal 24 heures yéen kaay moom cofeel moom moo ko war a jëf liggéey la ci doxalinam la ci ni mu yore réew mi la loolu la wala xoraal moo gën ci moom Ousmane Sonko mel ni ku xam ngeen lu ko ci dugalam fa bëgg a am ñetteelu mandat waaye na ko wóor moom ak tubaab yi koy jàppale yépp li ni mel sénégalais duñ ko seetaan du fi amee de lu jëm nag ci wote député yi ñun waa yeew yi ak wàllu waruñu koo ñàkk te fañ koy gañe inchaa allah Mimi Touré mel ni ku ko Sonko yow ci quatre vingt pour cent fii ci diwaanu Podor te mooy yéen a kaay na ko Mimi Touré fa wàccee waalo laa la wax ak Podor le mandat yéen kaay ne campagne bi nag politiciens yi thème yi nga xam ne la ñu gën a wax xam ngeen mooy lan wàllu ngóor jigéen opposition bi ku jégi képp ku woteel Benno Bokk Yaakaar fa ngay dooleel góor jigéen ndax ñoom seen député yi fa ñoo bañ ne duñu wote góor jigéen ñu def ko crime ci réew mi léegi nag ku fi bëgg a jëlee ngóor jigéen yeewi askan gi tamit ñu ànd ak Macky seen thème nga lan la ñun jàmm la ñuy wootee soxla woon nit ñi taxar réew mi ay nit fitna bu leen woteel muy ku jégi kujje googu sax ñi nga xam ne dañuy wax coalition Aar Sénégal ñoom fañ leen di tuumal ne nekkuñ ay opposition maanaam Macky Sall lañ faral ndax ñoom fa ñuy di xeex ñoom Ousmane Sonko ba pare na ñoom opposition leen loolu xel nanguwut ko kon ñoom Macky nekk seen ginnaaw li ni mel nag fa métti loolu waa Aar Sénégal ba tax yekk nañ waa yeewi kàddu mel ne xamee ba pare fa ñoo taxal liste benn bokk yaakaar ba enquête yéen ne Barthélemy ñàkk bu Serigne Mansour Sy Djamil fi mu tasaaroona dafa xar ñaar ah xam nga Serigne Mansour Sy Djamil fa jël dogal ne bàyyi nañ yeewi askan wi waaye ñu bëri ca parti ba fa ñoo bañ ne duñ bàyyi yeewi le mandat yéen a kaay ñu ko xamal critique yéen a kaay na ko moom Mansour Sy Djamil Macky Sall moo ko dalal audience ca Paris ca lañ toggee yëf ya keneen ku ñu dalal audience Ousmane Sonko njiit réew bu Guinée Bissau bi mu ko fi dalalee Madiambal Diagne ne Alioune Tine wax dëgg mukk Sénégal yëpp xam nañ ko ci yow supprimer dindi turbine yéen kaay na loolu na fa tey xel te li ñuy laaj mooy ñoom ñett ñooñu sax kan moo ci wax dëgg la neen luy dëgg mooy Pape Mamadou Seck bi feebaru ñu yóbbu ko fa avion spécial ñu wax na fa daw njabootam nee nañ dawut su fekkee fañ koo rey nañ leen jox seen doom ji ñu suul ko baayam ne sama doom ji ganaar sax mënu koo rey ndax saa bu tabaski jotee man faa koy rendil xaram mi seen kàddu yaa ngi ci direct news Ousmane Sonko ci Vox Populi ne su fekkente ne ñii fa ñoo rey Pape Mamadou ba pare seet fu ñuy jaar ba génn ci nañ ñu ko wax te procureur fa war a leeral sénégalais ci mbiru Pape Mamadou Seck yi l'observateur ne Ami Dia responsable Pastef ba teg loxo ne force spéciale la bokk lu ko enquête kat yi dégloo ci kanam ay avocat am nee dëgg la moom yónnee na xaalis Mor Gueye fañ ko santoon waaye xamul xaalis ba lan la doon jëriñ yéene kaay bi na ko pour force spéciale bi la réew mi yéene kaay mel ni ku naan l'observateur kaay ma wan leen lan mooy force spéciale ay soldats yu ñu entraîné yu garaaw ñeen fukk ak juróom-ñeent bàyyi ko réewum Côte d'Ivoire dem Mali kilifay réewum Mali teg leen loxo fa ñoo bëggoon a yëngal réew ma loolu mooy force spéciale léegi nag réewum Côte d'Ivoire fa waxoon ne seen ko nee nañ lool le soleil yéen a kaay di ñu xamal ne diiwaanu ndar Macky fale na gàtte de ma ngay daloo ay mbir yu bëri yu mu fa tabax te mooy yéen a kaay ne ki fi jiite woon Air Sénégal Ibrahima Kane ab tubaab de moo tax ñu dàq ko Philippe Bon li mu def bon na ci waaji de l'évidence yéen a kaay na Macky joxe na ndigal ngir xar bu manqué ci Sénégal yéen a kaay na ko yow nit ñi deeneen ci tabaski gi xar manqué cher nga bàyyi ba tabaski weesu yow Macky sal nga taxaw naan xar bu manqué ci réew mi xana njëriñ la la am njëriñ nag te Macky Sall ko mooy tabax defar autopont ca Kër Massar ba daloo na ko di ki démb juróom-ñeenti milliards la ca dugal laas yéen a kaay ne waa Kër Massar nag ñeneen fañ koy xaar libération moom di ñu xamal ne Frank Timis fexe na ba lijjanti ñaar fukki junne ak juróom ci ay hectare suuf diggante njaayeen ak fas ngoom muy lu garaaw ko Kalidou Koulibaly léegi leer na Chelsea lay football ginnaaw juróom-ñettaat yom def Naples tey ci alxames ji la fay hegg stade kaa yi ñu ko xamal tooxii doona ya bunt ba ubbeeku na benn soxna su am fanweeri xat ma nga tudd M Niass fa xam doom nee tuuti bu am ñetti fan mu daal di koy xoj ba nee na tuuti ba sedd guy faatu mu laxas ko ca ab mbuus plastique sànni ko ci kër gu ñu tabax te heggut yëf yaa nga amee ca quartier bu ñuy wax Daaru Salaam diwaanu Thiès bi ko takk deeri jàppee mu ne faa xam gàcce ndax sama xaritu benn bakkan bu jigéen fa xam far man ma ëlbatiku di génn ak faram wa ci suuf léegi faram woowa moo ma wann loolor waa ne gis ngeen gàccay xam doom xamoo jëkkër benn garab joxe sa bopp